Benno Bokk Yaakaar amul beneen candidat bu dul Macky man membre Benno la ah, naa la wax nag mhm. buñ ci yeggee suy ah. parce que ñëwagoo ci ba léegi question de mandat bi bugguma la dagg sax mais foofu laa bëgg a ñëw si troisième mandat bi gis nañ ni tey jii nii président de la république mu ngi toujours dans le clair obscur nangul wax ni day dem troisième mandat comme nangul wax ni euh, du dem élection tey jii nii yow lan mooy sa position par rapport à cela. lu leer laa lay wax tey xaw ma mhm. xaw ma mus nañ la wax lu leer ci say interview. Mhm. mais tey ngay dégg ci Amadou Diarra lu leer nañ ci affaire mandat mhm. benn Idrissa am na droit bañ cee ànd. c'est son droit le plus absolu. et c'est pas la Bible ni le Coran ni la Constitution. c'est la pensée de Idrissa Seck heureusement ba nga ne quelle est la position de Amadou Diarra donc maa moom bokkul. d'accord du du lu idi wax mooy dëgg du sama bos mooy dëgg mhm. dëgg kenn la yàlla rek xam mais ku nekk am nga sañ-sañ am sa xalaat idi am na bosom mais dañ koy déglu rek avance gëmuñu ko mhm. lu ko gënal mooy mu bañ a jàkkaarloo ak Macky parce que gañe daa jàkkaarloo nañ mu gañe ko gañe waale waat ñu jàkkaarloowaat 2019 mu gañe ko mais ku la gañe ñaari yoon doo bëgg a moom comme si bu lay gànna mhm. donc da fexee fexe théoriser pour mu bañ a bokk mais idi teg na ci ne conseil constitutionnel wax waa ou déet pas son problème moom day dem ci Sénégalais pour wuti voix. Mm-hmm. donc jàng na pour l' avenir. Mm-hmm. maintenant. sama position. Mm-hmm. dama koy inspiré ci président Macky il dit am na ñuy wax ne bind na ne moom deux mandats lay def dem. te gëm naa ko deux lay def dem. wax na ko lool. waaw wax na ko. moom Macky wax na day def deux mandats dem mm-hmm. bind na ne dafa bëgg def deux mandats dem mm-hmm. comme ni mu bëggee woon au lieu de faire sept ans mu def cinq ans mm-hmm. daf ko bëggoon gëm ko pour joxe ci expérience mais conseil constitutionnel yow yaay président de la république mais constitution bi moomoo ko de fii mandat kenn du ko dagg te kenn du ko yokk c'est que on te donne pas latitude saa yoo la neexee nga wàññi mandat bi yow mi gagné walla nga yokk ko mënoo tu as un mandat tu vas le consommer amu jeex am nga nag sañ-sañu initier des réformes mais réformes yi ñu appliquer ko dans le temps mais bii nga am ni mënuñu ko laa Macky je le vois comme un Sadio su doon football ci politique mm-hmm. mooy capitaine du Sénégal parce que mooy président Sénégal mm-hmm. donc su Macky Sall ne day noppalu te nekk xale bu góor màggatul amul atu Ablaye Wade amul atu Moustapha mm-hmm. mais yow boo ko jegee war nga ko wax bul bàyyi soxla nañ la ñun waa APR. ñun waa Benno position boobu la ñu taxawee mooy Macky Sall su fekkoon sax constitution bi nanguwu ko Sénégalais yi ñoo war a daje changer constitution bi pour mu nangu mu nekkaat su fekkoon laa wax constitution bi nanguwu ko on devait vu les résultats yi mag Macky def ci réalisation ñun ñu daje mais constitution bii baaxul parce que suñu waa ji ak lii mu mën ak lii muy def ak fi mu ci toll ci réalisation ak lim ñu indil. en termes d'infrastructure de dernière génération ba commencé bañ a nawati yeneen dëkk yëpp mais kooku ñu bëgg ko nopp looloo ñun nanguwuñ ko donc ñun su combat xam mooy lan mooy li nekk ci bopp Macky Sall bu dee yem ci deux mandats la ñu dindi ko ci. ngir mu dem troisième ngir mu dem troisième candidature. mandat moom askan na koy joxe. Mhm. mandat c'est après élection. après élection qu'on mandat mais actuellement on parle de. candidature. na yóbbu candidature pour avoir un deuxième quinquennat quinquennat après avoir eu un premier septennat. mais loolu est-ce que du jur coow parce que fi mu ne ni tamit population bi nanguwuñu si troisième candidature bi. ça veut dire man bokkuma ci population. non de manière générale en fait. comment tu l'as il une partie de la population. merci tu as bien <laughs> modulé ta question. ça veut dire ñi toog naan le peuple a dit la population dit il n'y aucun paramètre benn journaliste bu nekk Walfadjri la waa Sonko di ko yónnee ay Wave ay Wari mu toog naan le peuple a dit la population a dit te ma xam man. yaa non dama leen di tooñ parce que dañu dëkk ci di ñu tooñ dama ci xam ñu bëri man. damay bañ ku ma ku ma indil preuve diffamation te aw ma preuve mais dama ci xam ñoo xamante ni seen train de vie aujourd'hui c'est des pastefiens étrangers yu nekk dans la diaspora ñoo leen di dundal mm. bu ñu jàppee un ministre bu bokk bennoo su paree. guddi googu seen téléphone day toj ci xaalis. léegi yéen tey non non parce que journaliste yi ku leen laal rek du ma ci revenir bàyyi ma teg foofu sama baaraam da ngeen di bañ ku laal journaliste. bu <laughs> non non attendez pour revenir à un peu si euh, ma bañ a wax ma bañ a xóot foofu. par rapport ak troisième candidature bi laa bëgg ñu dellu si waat pas des extraterrestres vous les journalistes. cest à bu mu leen man je suis un homme politique j'ai de faire la politique. Mm-hmm. su ma dajee yéen ngeen wax ñu lu leen neex. wax lu leen neex euh, homme d'État yi. Ah, di di di liggéey guddi lu leen neex mais ci benn plateau kenn du wax benn journaliste dara solidarité corps impossible mais c'est de la dictature laissez-nous nous dire ce que nous pensons de vous parce que vous dites ce que vous pensez de nous c'est ça la démocratie. mais yéenay diriger ñun diriger wu ñu. ñun dañ nekk fii di modérer au fait. moo tax waru leen ñu wax lu leen neex xañ ñu ñu ñun ñuy diriger ñu am possibilité joxe suñu point mais bu fekkee yéenay diriger moom. boo leen defee loo xam non pas ngeen noppi mais boo leen defee loo xam ni teguwul si yoon. am nañ yéen foog ne teguwul si yoon. ci nag. oui parce que ñun duñ d' ci ni ngeen di foogee noonu la ñuy doxale ñu bëgg am occasion ci seen plateau yi nga koy waxee waxee ne du noonu ngeen fël sunu làmmiñ d' accorduma ci nit gu toog ne peuple bi àndul ci troisième mandat c' est de l' affirmation gratuite maanaam damay bañ a wax baat bi. Mm-hmm. ci wolof dafa ñaaw c' est des contre vérités parce que même un sondage ne pas général. Mm-hmm. sondage da jël benn portion de la population mm-hmm. nga wax gis naa benn échantillon fii pour mën a déduire que lii la ñu njoxt mais Ndeye Fatou tu n'as pas fait un sondage jëloo micro trottoir dem Casamance dem Fouta dem maatam dem Diourbel dem Koumpentoum dem Toubacouta ñëwal sama commune pour xam lu ñu wax. après nga toog nga ne la majorité des sénégalais c' une affirmation gratuite man je pense. je pense man très sincèrement dans ce pays par rapport aux partis politiques aux coalitions la coalition la plus majoritaire c' est notre coalition. et cette coalition pense que Macky Sall dafa war a dem troisième candidature. donc en termes arithmétiques. Mm-hmm. ñun ñoo ëppale yeewi askan bi. donc si tout yeewi askan bi n' est pas d' accord tout Benno d' accord la majorité avec nous. mais teguma fo teguma waxi waa yeewu askan bi teguma sax li mag Sall wax moom parce que il n'est pas la constitution teguma lu Ousmane sonk wax Ousmane Sonko waa Pastef war nañ déglu lu baax li mu wax il avait dit la réforme sur le référendum bii ñuy waaj a def di wax oui ak non yéen koy def de waaye boo leen ci deful une disposition transitoire qui précise que mandat sept ans bu Macky bi ci la bokk Macky Sall aura droit à un troisième mandat aura droit à une troisième candidature. Mm -hmm. c'est Ousmane Sonko qui le dit et je pense qu'il avait raison parce que la constitution actuelle du Sénégal en son article 27 c'est la seule loi l'article c'est la seule loi au Sénégal qui traite du mandat de sa durée et du nombre de renouvellement mmh. c'est l'apparente juriste qui te parle constitution bi article premier préambule article premier ba acte de conclusion amul aucun autre article à part l'article qui traite du mandat et foofu le mandat c'est la durée et son nombre de renouvellement mu ne la durée du mandat du président est de cinq ans après il a dit directement nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs l'article 27 nouveau ancien ancien du temps de Wade janvier 22 janvier 2001 moo waxoon nii la durée du mandat est de cinq ans il est renouvelable une seule fois cette disposition ne peut réviser être révisée que par voie référendaire trois dispositions la amoon benn article trois l'actuelle rédaction dafa wax en deux en deux alinéa. Le premier, la durée du mandat du président de la République au Sénégal est de cinq ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs, plus de deux mandats consécutifs. Mm-hmm. C'est clair. Mm-hmm. Donc la rédaction, elle est nouvelle ou ancienne Nouvelle. Elle est nouvelle. Oui. Elle est rédigée quand mm-hmm. En 2016, le référendum. Est-ce qu'il y a une disposition transitoire qui précise que le mandat de le de de 2012 de sept ans antérieur daf ci bokk amul mm. amul dañ génne une disposition qui dit mm. cette loi nouvelle rédigée en 2016 a eu une autre disposition qui précise on comptabilise l'ancien mandat amul mm. et en principe en droit nous apprentis juristes une loi nouvelle s'applique pour l'avenir d'accord donte sax que ni euh, yéen bu ngeen sañoon Macky dem euh, troisième candidature mais si fois président de la République mu génn ne moom si ñaari mandaawam yi lay yem est-ce que tey jii monsieur le mais man dinaa ko mere pour dem. allié ak beneen homme politique ngir mën a yokk say chance si wàllum politique. oui balaa mu may jox ndigal ci keneen. Mhm. parce que boobaa moom laay déglu mu jox ma ndigal. Mhm. mais balaa ñu fi dinaa ko mere. Mhm. te dinaa jàpp ne war na une génération. waroon na askan bi tas na yaakaaru Sénégal parce que amul droit xool intérêt boppam Macky Sall fi ko Sénégal jox ak li Sénégal jox président Macky Sall ci carrière politique ci CV politique musu ko jox nit kon Sénégal waru ko soxla ci en deux mille vingt quatre au moment où conjoncture internationale bi incertaine ñu war a am stabilité mu am expérience mm-hmm. dem tey yóbbu Sénégal g dem tey jiite Union africaine ñaata ak def ci ay résultat Sénégal Gambie bii nga xamante ne présidence Abdou Diouf Senghor Abdoulaye Wade jéem nañ ñu am pont ba léegi mënuñu ko am sa diplomatie et son sa sa sa prégnance devant devant Adama Barrow tax nañu ñu mun a defar pont boobu loolu rek résultat la pour nit ki personnalité ak espoir de tranquillité régionale bu mu war a mun a incarner. nga bu ko jël di ko remplacer un aventurier qui en réalité une marionnette commanditée par ailleurs des avocats qui l'entourent pour le conseiller afin d'assouvir à des intérêts que euh, qu'on ne peut pas dire aujourd'hui d'accorduma ci mhm. su Macky Sall defee loolu mhm. man dinaa ko mere ci kanamu yàlla te am bu ma amee fit dinaa joxoñ naa ko joxoñ nag t'as pas droit de trahir notre notre notre espoir sur toi Macky Sall même s'il veut s'il veut ne pas être candidat On doit le forcer à être candidat. Et tous les Sénégalais, hein, tous les Sénégalais doivent voir en Macky Sall la tranquillité, la stabilité de, de notre pays pour pouvoir attirer les investissements et continuer ces infrastructures yu ñuy bénéficier. permettre nit ñi toog ci plateau yi di ko saaga di wax lu nekk nit ñi nekk ci réseaux yi di ko ça veut la démocratie marche. Mm-hmm. les parleurs sont en train de parler. mais lui comme c'est un bâtisseur il en train de bâtir mais nañ ko bàyyi mu bâtir. d'accord léegi bu ñëwee toog fii di wax. xanaa ñu seeti Marème wax ak moom ne ko waa ji warul warul retraité warul démissionné. d'accord vu que l'émission tire euh, à sa fin balaa ñuy euh, tëj rek ñu ñëw un peu commune